ñuy denk urbanisme logement ak hygiène publique jiite na cérémonie lancement opération set setal ci commune bu Dakar Plateau yile opération dafa bokk ci programme bu sub setal nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall moom moo ko taxawal. opération bi nag li mu war mooy ñu def désencombrement mooy fépp fu nekkoon ay épave ou bien ñi nga xam ne ci yoon yu nga xam ne place waru fa nekk ñu dindi ko fa mais aussi ñu set setal ko ba mu set wecc loolu maa ngi ciy gërëm monsieur le gouverneur Dakar di gërëm sous préfet di gërëm monsieur le maire et ministre Aliou Ndoye ci effort yi ñu def yëpp ñu bu conjugué suñu effort ba opération bi am succès bi mu toll ni ci adhésion population yi mais aussi surtout adhésion ñu nga xam ne ñoo ngi ci ci euh, ci réel yu ñu jaar. Abdoulaye Seydou Sow di xam ne ne jël nañ matukaay yëpp ngir fexe ba mbeddu Dakar yi mën a tàggoog occupation illégale. mais bii nag dañ cee farlu farlu bi nag mooy yëkkati ñi nga xam ne toog fu ñu war a toog mais set setal ko. loolu ba pare aar ko aar ko nag mooy suivi suivi moo ëpp importance te liggéey bi tey euh, daanaka def nañu liggéey bu liggéey bi gën a rëy mooy naka la ñuy def ba lii dootu amati ci biir Dakar parce que euh, ku ci nekk am citoyen mu nekk te constitution moo garantir am na droit fu mu noyyi te Dakar moon na ba daaw daaw tolloo yooyu les opération ñu amal ko ci teewaayu Alioune yi di maire commune ba nekk itam jëriñ bi ñu denk environnement moom nag feddali war na engagement ma ngir gunge processus bi fexe ba ñi nga xam ne ñooy yeewoo dakaar mën a am cadre de vie bu mucc ayib. lii programme président la république daf ko defoon yitte ba muy falu Sénégal zéro déchet Sénégal zéro bidonville et cetera donc loolu ci programme la boo xam ni ñaa ngi koy dawal di ko dawal fépp Dakar nag mënul nekk te nag am na loo xam ne du lépp la ñuy wax ci caméra waaye dem nañu ba suñu sécurité nekk ci xottu gerte fii ci Ndakaaru loolu nag dañu mën a continuer di ko bàyyi muy dem di law te mënuñu wax lépp itam ci mbedd kon damay bàyyi yenn yi xel yi mottali ko ba pare nag ñu lëkkaloo joxante loxo. opération set setal ci centre ville bu Dakar. mooy marqué fukk ak juróom-ñetteelu édition bésub setal dinañu ko amal ci diirum ñetti fana ngir fexe ba setal espace public yi nekk ci commune bu Dakar Plateau.